asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV defe naa ne fii ma toog nii moom miin ngeen ko ci Equivox TV ak Babacar li ko waral nag mooy ñi fiy fekk di leen fi fekk si maanaam ay ndaw lañ yoo xam ne ay Sénégal lañ di liggéey. gale ñu ci jël seen xaalis dugal ko si làmb ku mel ni baaba jaw jiite ko ànd ak ñoom Amdi Moustapha Abba Papa Ndaw ah ak Pa ak Adama ah noonu la deme ah staff bi. ñu jëm ci combat boo xam ne nag daaw la woon yàlla defoon mu yàqu woon ndax coronavirus bi mais ci borom vax bu rafet bi lay njëkkee man. ñu ngi lay ziar Babacar. tur bi. Paada laa tudd. Ah. waaw ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu di rafetlu sa teewaay tey ci kanaal bi. Mhm. waaw comme ni nga ko waxee rek fii moom gars yi liggéey lañ xam quoi. waaw te ci lii nii la ñuy tàmbalee ba tey jii ñu war a mën dugg sax ci làmb. waaw ci lii nii lañ nekk quoi. waaw ci lii lañ tàmbale boo mën tey sax ñu war a mën taxawal ay journée waaw. waaw incha allah. <laughs> sa waay ak lay tooñ na poor nga. non kii day kii day sànni xeer rek non poor dëgg la. lu mu jël man naa ay quarante personnes. wala ko yàlla xam na ko yàlla xam na loolu. dëgg la mais man maa ngi port yor fa sama entreprise bu bopp waaw di ko gérer jël fa tamit ay booy maintenant rek ñu nekk fa di ko liggéey waaw lépp pour wàññi chômage ñu ñi wax emploi ni di ko yokk ko ci waxee neen yow yaa ngi yokk emploi yow. non man dama gëm ne kenn ku ci nekk war nga mën nekk entrepreneur te ci loolu noonu baaba mi di suñu président ci loolu la ñu yàgg a taxawloo yàgg ñu gëm loo loolu kenn ku ci nekk booy dem mu am yëkkati dara jox la ne la demalal sa bopp waaw ba tey jii kenn ku ci nekk yaa ngi ak sa mbiru bopp. am nga jaama mu ngi sant bu baax. mu mel ni yéen fi mu nekk nii li ma fi indi tey mooy le 6 juin bi moom moom fi tax a ñëw tey soq gàmmu gi. waaw soq gàmmu gi ñu ngi ci. Mhm. ñu ngi ci ah instant yii nii liggéey bi tàmbale na bu yàgg. Mhm. waaw tàmbale na bu yàgg. waaw instant dañuy xaar jour ji rek. incha allah. Mhm. Mhm. ngeen songu daal après koor gi ngeen songu communication beeg yeneen affaires yi ci. non ci biir koor gi sax. Mhm. waaw dina am ay affaires yu ñu lancé bu soobee yàlla yàggatul waaw ci biir koor gi waaw. loolu am na solo Amdy Moustapha maa ngi lay bëggee. Eh, Babs maa ngi lay delloo gi. waaw ñu ngi ci kawam ñu ngi sant. méttiwul waaw alhamdulilah sant sëñ Tuubaa ñu ngi sant wér. Babs waaw comme ni ko waxee gaay rek. ñoo ngi waajal suñu journée le 6 juin di ci woow monde làmb ñu ciy waajal ay événement bu am solo nag waaw ñu ngi ciy liggéey waaw man ñu ciy liggéey fi mu nekk ñu ngi ciy liggéey bu baax di ci waajal xam nga bëgg nañ ci def loo xam ne ni bu le 6 moom dañu bëgg affaire bi saf sàpp ak làmb incha allahu rabbi combat ngeen tëgg de combat yi waaw sox amateur sox gàmm gay waaw pôle bu daaru Mamor Zagob Mbagnick waaw ak Mod Kaw Cissé waaw ak yeneen combat yu yi ci top ñoo ngi koy waajal aussi tamit maa ngi ciy lancé waale message euh, sunu rakk jiñ ko tuddee El Hadj Kayta waaw jeune Médina la nekk xam nga ak Assane Bongo moom tamit doomu Médina la ñooñu la delloo njukkal ak waaw ak suñ benn grand frère nag ñu koy woowee Ousou Boy Joël mm-hmm. ancien entraîneur u Jaraaf dafa dañ ko ci rendre hommage ci bés bi defal ko ci benn drapeau waaw. loolu am na solo yàlla na ko yàlla yërëm moo bépp julli. allahumma amiin waaw di ci woo monde làmb yëpp nag di ci woo autorité Médina ñu ñëw jàppale te xam ne lépp. doomu Médina moo ko organisé drapeau bi drapeau Médina la waaw mooy lool daal ñu ngi ciy woo ñu ngi koy waajal daal ñu ngi ñu ngi waaw daanaka gars yi wax nañ lépp rek instant yi daanaka wax amatul daal sëñ Babacar instant yi liggéey liggéey rek a fi des wallaay li nga waroon wax yëpp wax nañ ko. xam nga lépp loo gis nag euh, yàlla moo ciy dogal yéen bi ñu amoon mooy tëgg bu yàgg ba mu féete boor ba ñun instant bii nii amoon nañ pour nekk ci leneen xam nga tëgg yeneen affiche yu gën a mag yi sax mais lépp loo gis rek dañuy sant yàlla rek te xam ne yàlla mooy dogal lii la ko namee woon xanaa lu dul taxaw ci di dox ci wax ci incha allahu rabbi di waajal le 6 si kàttanu yàlla xam nga maanaam organiser ko organiser bu am solo bu am maanaa incha allah yàlla taxawuñu si barke Seydina Mohamed ak barke weeru koor bu sell bi liñ si bëgg ñoo ko xam yàlla na kawe suñu njort di jaay naa Mohamed dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin ba tey bu ñu continuer yaakaar naa dégg ngeen li gars yi wax ki ci des nag mooy baaba Diaw ndax moom moo jiite structure Thiam production defe naa ne ba ñëwee si làmb ba tey ah liñ fi taxawal ko am na solo Baba Diaw le 6 juin. ci ngeen jëm ginnaaw bu ma la nuyu ziar la balu laax si weeru koor gi maa ngi lay bëggee. Abbas ah, ak ah, maa lay fay xam nga nga du la baal ak di ñaan yàlla yàlla defal ñu taw feex xam nga bépp jullit daal ak suñu boom sutural la xam yokk sa mën-mën yokk sa doole si bàkki axuwam yàlla nangu ne soq gàmmu gi daaw la woon yàlla dogal coronavirus ñëw nga aj ko ba nga ne suba lañ koy tëgg ba nga waaj ba pare ba sa lépp génn joxe sa reliquat ak say avance ak lépp def maanaam fay lépp la waroon fay ci lañu ñu arrêté làmb ji boobu ba tey muy raam di raam bu ñëwaat ren defe naa ne coup boobu coup bu metti la woon ci yow en tant que koo xam ne génn nga sa xaalis ànd kook sa ay nit. ah Babs waaw métti na méttiwul ndax jàmm dëgg day nangu ndogal kon bu ñu da xam nangu dañ xam ndogal la waaw ah, tey ndogal ba saa yi jeex na kon dañ ñaan yàlla le 6 bi suñu boobu eggal ñu si jàmm. xam nga. yàlla nañ si yegg ak jàmm léegi le 6 juin moom nga jàpp kañ nga am boobu. le 6 juin euh, su ma jëmul su ma bële ah c'est ma CNG woo ma dugg ma tànn daal le 6 juin bi waaw. saa dugg tànn le 6 bi quoi. ok waaw su est ce que c' est confirmé date bi est ce que confirmé na ne actuellement Baba Diaw le 6 juin moo ko moom parce que fan yi dañuy dégg problème ay date ay wax jàppal bàyyil ci date yi yow c' est sûr ne le 6 juin di ci tëg soq gàmmu gi bu soobee yàlla waaw pour man loolu waru am jafe-jafe ay problème date CNG si boppam ñoom xam nañ ku jiitu ak ku si topp ak ku si topp tey wa illa leneen lu def ñoom la neex dana kuy sàmm maam sooy sàmm bu mag bi ak bu ndaw bi mais doo sàmm bu mag bi bàyyi bu ndaw bi loolu suñ ko defee teguñu ko fenn comprendre am na yeneen promoteur yoo ñoom ñoo si topp comprendre dañu war ñoom dañu war jël seen date ñoom tamit comprendre man bab suñu moo gëm mooy gis nga soo jiita euh, waaw say njaboot day yemale ñëpp ko am ak ku amul loolu mooy dëgg comprendre ñu suñ date moom jël nañ ko le 6 la comprendre ñaan manager si nañ ko def nañ ñu woon def lépp mais dama laas appel comment la si yenn promoteur xam ne seen loxo jot seen dégg ginnaaw te ñu woon ñoom woon organiser ñoom tamit comment la nee leen gars yi jox si dati comment la loolu mooy dëgg leneen lu ñu si def teguñu ko fenn man naturel li laa mel ndax su ma ceeb maa koy joxe suma bopp du mbindeef bu mu koy joxeel affaire da war a mu jaar yoon. da nga am loolu quoi. amoo mais. mais CNC kay ku fa dem laaji dat xanaa kay dinañ la jox sa dat wala yu mel noonu ah, yaakaar naa ko dem ñu jox la dat de wala. waaw moom laa la wax xam ay bëgg naa ay nangam déedéet loolu loolu du wax dañu war maam avant kenn ku jël benn dat dañu war bàyyi ba CNC jox la soog koo génne ne maa moom dat bii mais tey di teg sa maay ne dat bee ñëw soxla naa ko te yow am am ñu la jiitu comment la di dox sa kaw xelu gars loolu moo naa sul da nga jàpp ne kon mbir yi dañ ko war a teg daal ci yoon ku nekk ñu jox la li nga moom daal. Babs loolu mooy dëgg na nga teg ci yoon ñu boole ku am ak ku ñàkk ndax gisa àdduna day dox ëllëg kuy am suñu boom dong ko xam kon nga na rafet waaw. yow mbaat dañ la xañ dara. non man kañ xañu ma dara mais man naturel ni laa mel man damay sool lu ñëwagul ko ndax tey ginnaaw yàlla man maa woon jël am na ñoom Assane Ndiaye ñoom Fallou woon ña xam nga ñoom Dieng nangam bëri na. comment waaw foofu laa waxee quoi. léegi le 6 juin bi fi mu nekk nii c'est confirmé euh, Sokh Gamou Gueye muy combat boo xam ne defe naa amateur yi lamb yëpp ko soxla woon ñëpp ko doon xaar daaw sans compter combat ya nga ca teg Mamor doomu Faas bu lee Tigre ca Mbaye Gueye ak ka nga xam ne moom mooy Paul bu Daaru nekk Kër Massar ñu ne déet ne waaye ngeen di mbañe Kayre doomu Boy Kayre rakki Dieng ak ki nga xam ne mooy Jacob Balde doomu Ama Balde exil loolu ak kan Modou Séréer ak Kaw Cissé numéro boobu journée Baba ah, loolu doy na waar de. waaw xam nga avant tout ñun ay amateurs la ñu. waaw ba yàlla xam ni chaque jour sama gaa yi fii la nekk di werante ñun làmb tëb tëbu tëb la dugg si. bu ñu gën a nekk tout tànk dañ ko siif ba koog bi ñu toll nii. xam nga maanaam bu ñu jëlee soq gàmmu gay dañu xool yeneen yeneen booy yoo xam ne tey xam nga ay ay mbër lañ. ko baax ñu jël leen dugal leen si bis bi xam nga Babs daal loo mënti dégg la sis daal nañ koy wàcc ak doole. am tam sama ay mbokk ñëpp xam nga ànd ak engagement ay xarit ko voilà dañ waaj doole tey bëgg na si def loo xam ne incha ku ñëwee saat nga dina sedd mbër yi actuellement waxtaan nga ak ñoom ba ngeen dégg ba ba ba ba ñu jot ci daat bi ñoom itam. waaw soq waxtaan nañ gàmm waxtaan nañ xam nga benn benn benn boy yu bëri tamit waxtaan nañ mais lu si ab laat nga moom ma koy dox waaw. ko mooy wax ak ñoom daal. mooy wax ak ñoom kon le 6 juin daal kon nañ jàpp ne incha allah rabi yàlla nañ ko fekkete tal ko soq gàmmu gee ci lay am mu nekk làmb joo xam ne làmb ju nar neex la mais ren làmb ji baaba dafa mel dafa nar a jax de parce que maanaam combat yi taxaw bëri na maanaam est ce que sax date yi dina ma mate journée est ce que dina mate combat yi laay wax. waaw moom laa la mais avant tout dem comme lu ma le 6 bi daal dañuy woo amateur ñëpp xam maam du woo Sénégal ñëpp ñëw jàpp si ay ndaw lan te maam gëm li muy def yàlla xam ne mësuma tukki. ñu toog fii yëpp kenn mësu tukki lu ñu am fii lañ ko faay tey Sénégal yàlla xam na loolu kon dañuy ñaan rek Sénégal ñëpp gën jàpp lañu Babs moom laa wax léegi pour man affaire date bi warul metti dañu xool ñu jiitu ñu ñu dugg jël seen date comment la combat yi taxul yëpp yàlla na egg si jàmm mais si kaw ñu teg ko si yoon gis nga baax la combat yi taxaw combat yëpp neex na mais yàlla na egg ak jàmm mais si kaw ñu teg ko si yoon bu kenn néewoon nit doole est-ce que baax dégg-dégg bu kenn néewoon nit doole yàlla doo nga am doole nit saa sax day am doole sax jekku sax yémmande wala la dugg sax a baay mu sedd waaw wax la quoi. loolu leer na mais léegi tam am na ñoo xam ne dañuy laaj baaba Diaw ko yi mi taxawal ah te mooy loolu si parce que buñ la gisee simplicité bi baaba doo ko gis ak yenn comportement yi ñu naan lu ne ci ginaaw baaba maanaam baaba da nga koy gis rek moom tout le temps ala taali bi nga koy gis lan moo ne sa ginnaaw parce que combat yi ngay taxawal ay combat million la. waaw xamanday wax naa la waxate la la nekk wax lu du dëgg non gëwuma loolu toujours chaque jour ma la koy wax man ñii ñii nekk sama ginnaaw yàlla xam na ko ñii ñoo nekk sama ginnaaw ñii. amul keneen xam nga am na comme lu ma wax lépp li waaye di wax rek day fekk mu doon lu mu gëm ak ak lu mu dëgg xam man du ma wax loo xam gëmuma ko waa kéema xaay tiim ma may wax loo xam ne am na diw bu nekk sama ginnaaw nag non non ñii noo nekk sama ginnaaw ñoom ñoo jël sa ñàq nga du ma ko jox may jël sama mbos du ko boole waaw. mais comme ça tey gars yi fi ñu wax souvent des fois bokk na am na solo la ñuy dooleel la mais tamit ku ne xam ne ne li ngay génne xaalis la wala li ngeen di génne xaalis la est-ce que yi rentabilité bi mu ngi ñëw wala yéen a ngi xaar ne di ngeen ko ciy jot. waaw moom laa loo xamante ne nit ku nekk soo sañoon soo yëngu si mbir nit ñëw jàppale la nit ku nekk. te yow li lay ni bëgg na doom xamal nit ñëw jàppal teg la loxo suma ma seneen am ñu ma teg loxo mais day fekk lu may wax mu doon lu dëggu su ma ne Babacar teg na ma loxo te ga tegu ma loxo amu sens ma doon ñii am te maa ñaan yàlla nag xam nga képp ku ma ko am mën na ñëpp jàppal ma mu jàppal ma comment et puis si dama la koy wax gis nga àdduna ragal yëpp yàlla la suñu moyen bopp lañ jël du ko si def di ñaan yàlla nag suñu boom si tuxaal ñu mais saa yi nii amul lenn lu ñuy seen si làmb xaalis non si kanam la am na solo euh, soq Gamou Gueye yow la waaye danga tëggaat beneen combat wala ñaari combat bokk na ci Zal Bawal caatu yaraax boobu defe naa yaa ko tëgg bokk na ci tamit combat boo xam ne combat bu mag la parce que double moteur ku ko jël boole ko Quench tëgg nga combat bu mag combat yi yooyu tamit kañ nga ko fas yéenee tax euh, def maanaam seeni i kañ la. waaw xam nga ñun dañ bëggoon jël journée yëpp def ko benn journée. lépp ngeen bëggoon boole. waaw moom lañ bëggoon boole mais xam nga seen euh, temps bi antuwul am na kaa nga xam nangu nañ am na kaa nga xam nanguñu comment la ma ne ñu mujjoon bàyyi double ak quinze mais xam naa feeg fan yu néew Abdoulaye dañuy uta date double ak Zal Zal Bawol caatu yaa xam ne. ah ñoom ngeen bëgg a boole benn journée. waaw. dañuy xool instant yi dañuy monté te xam nga comme lu ma wax am na yeneen combat xam bëgg nañ ko monté xam ñu instant yi dañ toll si ay monté combat su su antoo tam mën nañ def yëpp benn journée su antu tam mën nañ def kii journée defee kii journée waaw mais bu ma la déggee tamit kon bëggaat nga yeneen yeneen combat yu bokkul ak yi nga taxawal yàlla xam na ko Babs hmm. yàlla xam na loolu xam nga souvent mun lay wax ni si caméra sax xam am am ñoo xam gëm nañ la am ñoo xam duñ la gëm man kat ñoo la jege dëgg ñoom su baax ko wala suma life comme lu may faral di wax dama ko ñafe suma ma amee su ma nee def xel ñaax si benn miir ma tey ko bàyyi ndax sama yaay sag du loolu la may wax lu dul wëy ko dakkal waaw sama yaay sax du loolu la may wax kon man gëm naa ni incha allah fu ñuy dégg itam promoteur yu mag gi gëm naa ni soo soo suñu borom dina ma fa dégg waaw Euh, léegi ma laaj la lenn ba tey si côté boobu parce que fi ñuy dégg promoteur dañ leen fa dégg yàlla na yàlla def loolu defal ko bépp doomu aadama muy yëngatu yaakaar naa tamit dama gis benn affaire ci biir Médina bi ak Gueule Tapée parce que dugg naa fi duggati fi gis baaba Diaw tamit benn complicité bu mu am ak xale yi nekk Médina lan la loolu lan moo indi sa diggante xale Médina yi parce que gis naa benn suñu tuddee fi rawante gaal kere ñoom ñëpp a génn topp la lan moo xew sa digganteeg Médina ak Gueule yooyu. waaw yàlla xam ne sax suñu xewante ak gaal bi sax yàlla xam ne am ñoo xam ne sax waxuma leen ko ndax su ma la nga waxoon suba di ñëpp loxo jàmm la amuma mais lu mu am as néew maa ngi koy bokk sama ay dëkkandoo Babs dama ni ñu suñu boom may na ma ko mais man rus naa génn dëkk feneen bàyyi Medina hmm. rus naa lu waaye di sa borom may na la ko macha allah mais rus ngaa génn Medina di dëkk feneen di bàyyi waa Medina. bàyyi Medina. lu tax loolu. non yàlla xam na ne jour bi seeti gàmmu ak ma ak sama copain loolu la ni mu xuloo soota bi. xam nga lu tax nag gëmuma ma nekk si quartier bi màggee si quartier bi suñu moom suturaal la daw génn bàyyi fa quartier bi man lu mu met met si biir quartier bi laay yeewoo lu ma bokk bokk ak ñoom loolu tax ma ne naa di génn bàyyi quartier bi. yàlla xam na loolu. loolu moo tax ma gis xale Medina itam mel nii ñoo xam ne dañ la téye jàppale parce que loolu dama ko gis ci ñoom. waaw moom laa Baba Diaw moom laa la wax ñoom suma ay waay lan xewuma kenn bisam bis lu mu ndaw ndaw ndaw billaay wallaay dama fay taxaw mu neex ak mu mett loolu ak ñoom li leen def xam nga olof olof dafa wax naan wax ji bëri amu sens jëf moo bopp solo. yàlla xam na ne maintenant at yi nekk si biir maintenant ak si biir bi lu mu fay dugal par mois xaalis yàlla xam ne la mu politicien sax sa nga fa dugal pour ñu liggéey waxuma la comme politique yi ñuy def jël nit di may déedéet man may fekk atelier boo xam day tey kii day yor ay trente person vingt cinq personnes ma jël moo dugal dugal foofu pour ñu liggéey yàlla xam na loolu waaw moom la la paara di wax rek comme moom pour mu nekk tay ñu mu jël ne maintenant lañ nekk. waaw kon kon kii moom wax dëgg yàlla ah gaa yi nga war a jàppale. Baba ëllëg xelam du dem ci politique fii ci Medina. politique dana nekk si bopp politique dana nekk si mais si kaw mu doon lépp looy méngoor di def mu doon lu dëggu mais par jiital alal man ëllëg bugg naa tey sama Medina bi exemple ni comme États-Unis man sama bëgg-bëgg. moo la kon su aajoo loolu dem da nga fiy def. maanaam bu laajee nga laaj mairie bi sax nga nga laaj mairie dina waaw loolu peut-être si këram la ko la ndax doomu aadama tamit xam nu ko ëllëg wax euh, xam lu mu àndal daal xam bët yenu waaye moom du yenu mais xam na lu bopp àttan. xam naa peut-être si la mais su ma sañoon maintenant yàlla xam ne comme États-Unis léegi am na boo koo xam ne doomu Medina la Gueule Tapée euh, boobu ak Fass ak Colobane ba benn lépp benn gox la muy Diène Kaïré di mbër Diène Kaïré bi muy bëre sa kër la nekkoon. Diène ma moom bi ñuy ànd du tay wax naa ko waxati ko xam bi ñuy ànd du tay ma la man sax ñu toog fii ñëpp bu ñu ànd ak Diène du tay Diène bi ñu ànd ak moom yàlla xam na ni wax naa ko pour ñu naan kafe sax lu metti la suñu. yàlla xam na lool ñu koy jàppale du ko gunge ba yàlla suturaal ñu teewul ñu kon ne ànd moom te am na ñoo xam ne dañuy ànd nit su leen yàlla suturaale ànd boobu dakkal ko mais man du ma gen boobu xam nga si ma la nekk combat bi dama laa gis loolu nga takk ci rip ah moom Modou Anta waaye beneen sa damay takk ah. waaw ak ni nga nekk promoteur nii loolu du sa problème li mooy sport man pourquoi pas war ma mën tëgg jéen ak keneen si kaw mbër soo amee fulla laa yàlla laaj encaissé ànd saa yi mbokk liggéey dem liggéey su ma xamal luy avancé mbër wala luy avancé doomu aadama dem ko sama jëmbat yi waaw mais jéen da fekk loo xam ne bi ñuy ànd du tay ànd démb la kon loolu da nekk aussi mun naa ko tëggal combat est-ce que fi mu boo ko doxee moog beneen bëgg nga combat ak ak benn mbër fi mu nekk nii. bëgg na ay combat am kay mais xam nga souvent xam yomb pour nga am ko tamit parce que buñ la gisee day est-ce que gars yi duñ naan kii non moo koy tëgg moo koy yor moo koy ngemb na affaire yooyu. waaw moo koy dugal sax loolu bokk <laughs> ko est-ce bëggee tëgg du maanaam du jafe tamit. waaw waaw mbër bu gëm boppam mbër bu am fulla loolu waru ko sax kàggale. dina jël avance bi ànd ak ay mbokkam dem liggéeyi Babs wax naa la wax naa ko Lamine lii mooy sport man damay ci jëm nii kii ci jëm nii doon respect loolu mooy neexal làmb ji mais tey fekk dama yor daaw wax ngaa du ko nëbbatu woo du ko kii comment keneen taxu fee di saako non amul sens lépp sport la. sport lépp xaj na si sport su su booloo mais alkaati waru xaajale tey yàlla xam ne moo di ànd bu làmb ji jeexee toog nan waxtaan nan ak Serigne Touba mu doon Baye Fall dëgg jubab laay soo a gëm Baye Fallam bi man non ma de am Baye am ñoo xam ne ngay wax si tuux làmmin man Baye Fall laa nangam mais bu làmb ji jeexee si yaay sooga nangu moo di ànd Baye Fallam bi muy wax dëgg la si moom ak Seexu Xadim am na solo léegi fi may jeexal ak yow yéen fi mu ne koo ko bëggee a jox. laaj ko nijaayam bi toog. waaye man dëkkandoo dong la. waaw xam nga comme li ma la wax jën làmb la. am ñoo xam amuñu fu amuñu combat. mën na bëgg ñoom. Yékini Junior. làmb la. Yékini Junior jën mënta ci moom dara. kon mu tekk ngembam. ba pare nga pour tëgg ko bu Yékini si nangu woon. non xam nga ma laaj. jën yàlla woon mu mën bëxal. waaw Yékini waaw. moo Yékini si yoon làmb la. moo ma gàggal làmb la. ma ama neex làmb la. ndax essence su su la dugg. mais est-ce que loobu mu dugg mën na fa dara fi nga wax ni dafa diis de ama neex. Garga Mbossé Yékini si ñor. xam nga moom la dama ko xam. mu jege ma dëgg la dama ko xam man boo ko mënee ñoo xam ne dañuy topp si ginnaaw nit di daw ñu laaj ay question ñuy wax loo xam ne bu mu wóolu leen jën ku ma laaj ku ma laaj si jën mën naa ko bindal livre teg yàlla xam na ni ku du ñoonu jën mën na la daal am na ñu ma dégg ñuy wax digganteem ak Lac Rose loolu loo ci gis. non jën di bëre waa Fass. yaa wax loolu. bàkki axwaan tànk man baa wax ah. man ànd ak jéen jéen di bëri waa Fass. kon ku ko doon xalaat booy boo toog. non lu nekk lépp benn la lépp maintenant la te ñun Lac Rose dañ koy supporter. ke wala alu àdduna jaww daa nit bu maam nit bu ñàkk ma wanga dama an wanga toujours na diita ngoxamgul an alo adna du daan sport bi day jeex mais su boobaa jëf bu rafet moo fiy des génn suuf tànk maa ne ànd moom man baaba non du bëri waa Fass waaw ndax lépp benn la yàlla xam na ko waaw. baaba waaw non lu ma la wax nii Babs lu am la. keneen ku jël engagement man am na neen nu may jël suma engagement ndax am na loo xam lu fu dee xajul. bu fi kenn xajaat dara xaju fa parce que champion mag la xam nga ñun da ngay supporté toog fii ñëpp da ngay supporté yàlla xam na loolu Fass maintenant benn la xam am na am saga lañ bëgg am na coow yu gën saf xaju fa Fass bennoo tamit église su mu xaju fa supporté lépp benn la muy rafet Mbabs waaw nag dama wax kàddu boo xam ni day nit xam maa ngi jégul baax xam nga man ne toxel nii mel man lu ma gëmul du ma ko wax xam nga waaw. kontaan maa ngi gën a kontaan ci yow ah, nag dafa am sama copain yoo xam ni ay oui madame lan. ay ah. foofu laa yem daal. oui madame mooy lan. ah foofu laa yem nag. ragal seen jabar kenn daa am ñu ku fi ragal jabaram. Ah, waxoo sa bopp mbaa. man ah. Ah, jabar. ah xoolal nag xoolal. wala wala sa waay daa ragal jabar. non ko waxul su ma ko kii ñeme sa jabar ñeme sa gàcce la. waaw ah, man sama jabar bu ma ne woon ma bàyyi ma bàyyi ko. mi ngi nii de te la laay waxee. Ah, moo ma ko gënal man moo ma ko gënal. gënal am de am kii am baaba. moom moom ah, dama leer na ma ne bu ko awane woon bàyyil paana bu bàyyi ma. des na Babs des na de xam moom wax na am ñeneen ñu waxul. Aba. mooy numéro un moo yor drapeau bi Aba da ragal maanaam yow. waaw ragal naa ko kay. <laughs> su ne moon ma bàyyi bàyyil léegi ma bàyyi est-ce que est-ce que tey càmm <laughs> ab góor. gars yi dañuy jaarale ragal ak respect. <laughs> hélas hélas ah. kon léegi leer naa li baaba doon wax daal daa mel ni làmbatu wu ko. ay ku si nekk nee bu ma sama jabar noonu bàyyil baaba ma bàyyi ma bàyyi baaba kon li baaba doon wax dëgg la mais wax ji am na solo macha allah waxtaan wi mais tamit li mu wax am na solo defe naa ne sport lañ naa ah, hélas tey moom promoteur la tëgg ay làmb mën boo xam ne pare nga pour bëree ak jiin moom bu ko doxee bu la fayee lu ko jar pourquoi mënoo ko jël dem préparer say mbokk bëree ak moom loolu sport la rek yaa ngi dégg parce que promoteur yàgg naa ànd mbër mbër ma ñëw ñu daan ko loolu dañ koy gis ci làmb te loolu doon parce que dëkkandoo la yàgg na te ànd bu yàgg itam dëgg la di ñaanal ñëpp jàmm di ballu ñëpp ak waaye li mu wax tamit ci diggante faas ak euh, waa ak ñoom jéen defe naa loolu tamit lu xel war a mën a nangu la ndax booy kayre la woon ceegri Fass ak Moustapha Guèye ak Mbaye Guèye ak ñoom Amadou Kati Diop ak loolu dafa yàgg kon defe naa tamit li mu wax rek foo dara xajul kenn du fa xajal dara hélas yal na ñëpp am jàmm mais beneen message bi wax mooy Bougane Gueye Dany bi ñuy def suñu waxtaan seen nañ ko fii ci côté bi waaye Bougane ñëw nga ci corniche bi ci defarkatu lal yi am na solo waaye tamit lépp solo bokk na ci yéen ñi nga xam ne dangeen di laaj réew mi di ay politiciens bu leen ñu di des fois nax parce que baat bi foog ñu wax ko mu leer ndax ñu mooy tey lan hélas ñëw nga ci ñuy defar immeuble yi ñëw ñoom baaba Jaw ngi defar ay lal ak lépp lu mu mën a doon est-ce que voilà Baba ne na nga ñëw mu jox la ay bagages voilà est-ce que yéen ñooñu di nga xam ne yéenay wax loolu dem ci uude yi dem ci menuisier yi dem ci mécanicien yi est-ce que seen bagage yooyu seen kër est-ce que fi ngeen koy jëndee est uude yi leen di jaay dàll est-ce que tailleur bi comme nii moo leen di ñawal est-ce fi ngeen di jëndee lal loolu tamit question la li ci des nag. xel a koy mottali mais ñu ngi ñaan ñëpp jàmm Sénégal nag ñu ngi ñaan yàlla bés bu fi président Macky Sall jógee yàlla na fi jóge si jàmm ki koy jiite yàlla na doon ki gën ci réew mi ñun nag nekkaluñ fi kenn Sénégal rek lañ fi nekkal di balu ñëpp ak di la ñëpp jàmm bugaan tamit di la jaajëfal parce que am ambition moo la indi fi nga toll parce que tey samp nga rajo groupe Futurs Médias ak groupe des médias di groupe bu mag macha allah di nuyu suñu xarit bu fa nekk muy ñoom Baba Diaw caméraman ak ñi fay liggéeyee ñëpp mais daal li am solo ba am solo daal hélas looy def Youssou Ndour waxoon na ko na doon dëgg ci yow rek bu dul dëgg ci yow itam yaa ngi koy yàq noonu la fa demee.